aussi bien police gendarmerie ci jëmmi jamono. Mhm. nee nañ buñ ci yeggee incha allah dinañ ci wax liñ ci war a wax becc ko ci kanamu askan wi. Cheikh ñu commencé may tamit xaw na xaw na dafa xaw bëri lu mu war a tontu. Ah, xaw na bëri léegi dañ ciy jéem a jukk yi ci ëpp solo rek. sëñ sa pour euh, dellu si waat ci. waaw Mouride Sadiq waaw. <gasps> c'est pas adressé à tout le monde. comme si li nga wax ne. qui s'excuse s'accuse. waaw. sëriñ kon yow mën ngay njëkk a tontu. waaw ay dafa am ñu sonn lii xew dal ci kawam. Mhm. dafa am ñu ci sonn di ci tegoo mhm. ay coono ci moom. Mhm. ñu lay jéggalu. bi ci des mooy euh, li Malal wax effectivement gis nga Malal nit bu toppee bakkanam fépp foo ko bëgg a jëmale fu neexul bakkanam. du ko bëgg. moo tax am na ñoo xam ne effectivement dem foofu dem jeel moo leen ko gënal ba pare jeel boobu itam. dinaa ci dikk yow dégg naa la nga kaas ba tey pour les conditions de détention à Rebeuss man ce combat là je l'ai déglu naa dix mille problèmes ak ku ne gis nga vous êtes de la presse yéen ñii est-ce que une chaîne de télévision sénégalaise mës na am autorisation dugg Rebeuss filmer ko ñu gis ko c'est un problème Et il faut C'est la loi qui l'interdit. la loi qui l'interdit. Mais oui. il y a eu beaucoup de reportages dans beaucoup de pays en Occident. Ci conditions yi fii dina ko gën a interdire parce que on sait que c'est un deçà de l'indécence. Mm -hmm. oui, d'abord je suis d'accord parce que yow loolu benn sa combat la bi ci des mooy sëriñ mënul defar malal. Non, non dama ne non j'ai pas dit ça. maa ngi ñëw. non j'ai pas dit ça kon du ma nekk man taalibe sëñ Abdou Karim. non non il ne faut pas qu'on c'est-à-dire il faut terminer parce que man ma xam nga dama la digg ba nga àggal. non mais tu me prêtes mes propos. da may delloo li nga xamante ne. lii fi lii dañ koy dañ koy filmer de toute façon di nga dina génnaat. Mm-hmm. xëy na ni nga koy waxee ak ni ma koy. may dama ne dama ne waaw waaw waaw. am na boy yi ñuy jël di ko yóbbul sëriñ c'est parce que yàmbaa moo leen jàpp. waaw wala kóob. waaw wala leneen. waaw c'est des malades. foofu laa jëm si on doit les les hôpitaux. foofu laa jëm si. dafa am ñoo xam ne may mm. ma may ma dafa am ñoo xam ne. acca bismillah ñu déglu ko. en dernier recours lañ leen fa yóbbu. malal gars yi dem nañ ci hôpitaux yi. dem nañ fu ne. amuñ ci pexe. maag yow noo bokk li ñuy wax. Mm. mais kenn ku ne da nga koy waxee de manière claire. mu leer ci bopp nit ñi nit ñi xëyuñu rek seen doom di tux yàmba ñu ne eh saa da ngay tux yàmba rek yóbbu kër sëriñ ba déedéet dañoo essayé lépp ba mu sës ñu ne kon nan ko yóbbu kër sëriñ ba gis nga gis nga sëriñ si bari na ñoo xam ne ay centre de désespoir sax lañ leen def da ngay jur sa doom mu xaw a làggi nga yóbbu ko ci sëriñ ba nga jur sa doom amoo ci yaakaar jox ko sëriñ bi nga yor ko ci kër gi ba mu yàq ko ci say loxo nga yeew ko yóbbu kër sëriñ ba bokkul ak dof bi nga xam ne moom dañ ko yeew ba mu ne ŋadd ñu andi kër sëñ bi ñëpp di daw mu ne yeewi leen ñu ne ko déet sëñ bi day dóore de mu ne yeewi leen man gis naa ko ba tàyyi ñu yeewi ko mu ne ko damal nga sangu ji mu dem dugg ci wanag wi sangu génn sëriñ defare rek mooy liggéeyam su ko mënul du dara sëriñ Touba li mu wax la sëriñ saaliw wax ci la sukkandiku ba woote xel kom dafa ne ku ku ko masaan a jox doomam ci ñett yii lay sukkandiku defar la mooy dana la jàngal dana la liggéeyloo dana la yar ñett yi bokkuñu état Sénégal day jàngale waaye du yare du liggéeyloo kenn aujourd'hui on n'a pas d'école d'apprentissage d'aucun métier dans ce pays là boo xam ne gouvernement bi moo ko yor pour nit ñi mën a jàng benn métier ñett yi nag daa daje ci loxo sëñ Touba ku fa ma a ñëw it defaru ngay wax dafa am ku mës a ñëw ci sëñ Tuubaa ne ko dama bëgg nga defar ma sëriñ bi ne ko defaru day takkoo la laaj te man amatuma jot gi am na loo siñ loo signalé lu am solo mooy sëriñ Modou fi mu ne mag la nag dootul gone juróom benn fukki at yi romb na ko am na loo xam ne moo ko def ci loxo boppam mooy ces six cent cinquante personnes là et borom daaru rakkam c'est un de ses relais. Hmm. mais est-ce que suivi boobu ngay wax. parce que danga ne ma je suis tout à fait d'accord j'arrive. ceux qui se peut-être hmm. intronisés. Hmm. en fajkat wala en sëriñ. ñooñu ils na ont pas trop les moyens parce que mooy tax des fois dérive am. ni les compétences. mais ñooñu. du ñu ay jëwrin yu sëriñ bi defar ba mu ba ñu doy ko mu boole leen ak mbooloo mi ñuy defaree loolu la sëñ Saliou daan def daan defar jëwrin ba mu doy ko. mu teg ko ci kanamam mu dox digganteem ak mbooloo mais ñii. c'est des caïds sortis de la récupération. On parle de la récupération, on ne parle pas d'enfants. On parle de récup. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il y a 1000 cas, même bu ci cent même bu ci benn sax baaxee Serigne Modou jàmbaar la benn rek bu ci amoon jàmbaar la parce que c'est une initiative boo xam ne il l'a pris sur soit mais en tant que Serigne li ci des Yérim nun ay murit lañu ñàkk joxe sa doom déli ci yoonu murit ndax pour ñu mën a defar nit ki sëriñ Touba mooy laaj gone yi moo leen di laaj moo jël responsabilité laaj leen ngir defar leen ku tàbbi ci ay loxoom ba keroog mu lay yeewi ngërëmul yàlla nga fay wut wutuloo fa ngërëmul keneen ngërëmul yàlla nga fay looloo tax ñuy joxe suñuy doom ñuy dem daara wax naa la sama ñaari doom a nga fa sama doom sama taaw bu góor bi ma koy yóbbu dafa doon jooy ma xam na papa xam na yaay soxla na ko comme ni nga ko waxee maay baayam man ne ko sëriñ Saliou mu ne ma ne ko man sama bàyyi su ma mënoon a defal lii ma la defal ma gërëm ko lool ndax am na lu ma manqué man loo xam ne ñàkkoon baay bu yeewu ci loolu rek moo ma ko teg billaahi wal kitaabi mu fomp rongo ñi keroog la gëj jooy ba fii may wax ak xoolal il m'appelle même Diène il m'appelle par mon prénom hmm. c'est-à-dire dem naa ba yëg ni kii sëriñam bii moo ko gënal baayam bii parce que tamit bàyyi maam àggale rek hmm. sëriñ bi su fekkee mënul remplacer ndey ak bàyyi du du ku ñu war a jox ay doom boo gisee nun murit nu taxaw ne sëriñ bi moonu moom moo gënal parce que day am ci sunu diggante bu mu cofeel boo xam ne mu ngi ko donnee ci yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam balaa sa ngëm di mat mu gënal la sa jëmmi bopp gënal la sa ndey ak sa baay ndono loolu nga xam ne nag moom la sëñ Touba am ngir mën koo dimbalee nit ñi mooy waral nit ki bëgg ko mbëggeel googu waaye bis boo demee ba baaxaat ba mel na nga war a mel ba mu yewi la sa ndey ak sa baay ngay dellu ñoom la ñoo lay jariñoo ak say bokk beneen bi mooy cette république la dont vous parlez ba àgg ci daas yërim fii du France qu'est-ce que la France qu'est-ce que le Sénégal fait pour une femme enceinte ba keroog muy wasin dara moi j'ai une carte vitale en France je peux aller me soigner du ma génne un centime fii république bi du tous elle ne fait rien elle n'investit pas pour les enfants de la République on n'est pas des enfants de la République il faut faire attention la République quand elle dafa jël ay engagement nationaliser ñëpp ak lépp boole ci njaboot bi cest à nag nit ki boo ko bëggee yilif da ko koy yor jigéen ëmb république bi di def jigéen wasin république bi di def mu war a jàng ay wayjur amuñu moyen république bi di def ba mu sotti wala diggante bu mu am bi mu am fi mauvais traitement république Euh, dëgg moo am. dëgg may ma rek on est ko sëñ bi. wax ko mi xam naa ko dafa am droit loolu ñi fi ne xam nañ ko mais loolu amul fii Sénégal gis nga sama carte d'identité bi buñ ma ci yónneewul transfert d'argent xaw ma lu may jariñ un sénégalais qui va dans ambassade en Europe ne leen damaa jaaxle aw ma fu ma jëm aw ma lekk aw ma lu ma naan est-ce que dinañ ko daggal billet mu ñëw est-ce que dinañ ko toppatoo cette république-là, même si elle est là, elle pas sérieuse. Mm-hmm. Bon. Oui, on est ah, là. Ah, am na lu ma bëgg a leeral. Mm-hmm. Euh, su may wax joxe xale. Mm-hmm. Sénégal ñun ñëpp fi lañ juddoo.